ndax ndaje boo xam ne dafa ñëw ci waxtoom la jamono ji ñu wees yàlla bu mu ngi amati ji ñëpp gis nañu li fi xewoon Covid bi ni mu wanee suñu système de santé yi dund dund ñun dund rek réew yu xam ne dana xaw néewle doole mais même réew yoo xam ne tabaxakàlla yàlla xew la leen dara gis nañu jànkonte jafe-jafe yu ñu jànkonte woon ci Covid bi ban ca jógee nag ñu bari daan xalaat ñu war nañoo xoolaat ñun ñëpp suñu biir nu ñu war a taxawee parce bu lii amatee nun ko mën a ko mën a woyofale mais li ci jiitu loolu mooy fexe ba eh, chaîne d'approvisionnement maanaam yoon yi nga xam ne dañu war a pour lépp lu nit itteewoo pour eh, taxaw askanam ñu mën ci taxaw lolou nak buñ cee buñ ci bu ci ay nit wootee fi di ci waxtaan dañ koy rafetlu ci turu madame le ministre de la santé et de l'action sociale mais également ci turu gouvernement du Sénégal présidé par son par par son excellence le président Macky Sall ak ité yi mu def yëpp ak taxawaay yi muy taxaw yëpp pour renforcer davantage notre système de santé mais également faire de sorte que nit ñi mën a jote ci garab yi ñu soxla ci wax fan ko soxla ak fan soxla projet Madiba am na fi benn initiative projet Madiba am projet Madiba mooy dañu xalaat ni comme li fi xewoon bu euh, euh, vaccin moko ko moo dimbali nit ñi mu ni nanu ba Sénégal vaccin yooyu ak yeneen vaccin yoo xam ci programme élargi de vaccination le bokkoon dootuñ ko jégaani

joyeeti wala taxaw taxaw ci mbirum production médicament ñu jàppale len état bi dugal ci loxom pour que ñoñu tamit wat pour mëna lan doon def mëna taxawat ba nga xamné yeen médicament yi dotul luñu ñu bokku na ci lolu aussi ci bu yagul amna na benn ndaje bu nu amalon fi ci Ndakaaru Ndiaye lu mat fukki fan ak juróom di ci waxtaan du xol yeneen projet yo xamné ne ñeneen mën nañu ñëw tamit bokku ak Sénégal fi ci Sénégal pour di fi defar garab ak lépp lo xamné ne itteewu na mbirum santé ko loolu lépp daal bu ñu fa jógee du dootul nekk lu ñuy jéggaane